di sant bu baax Serigne Touba di santal sama borom kër Serigne Moustapha si guide moral bu Moustarchidine wal Moustarchidaat parce que ñun sunu famille nag man sama borom kër foofu la bokk moom mooy sëriñam di yaakaaram ma di wax ne ñun ñëpp mën nañoo am accident de làmmiñ mais nag nañu dalal xel yi te dal parce que man foofu rek laa mën a toll tey ndax je suis divisé kër sëñ Abdou Lahat la sama dom bokku fa ma bokku fa ak keur Serigne mustapha si sama borom keur bokku fa ñun ñëpp ñu bokku fa bokku kon ma ngi ñaan ñu dal suñu dom dina taxaw dina waxtaan lool rek la mëna wax bismillahi rahim Serigne Mbaye cham ma ngi lay nuyu di nuyu wa keur gi yep di wax rek ni eh, ñi ngi lay féliciter eh, ci sa ci sa reconduction mais di wax sénégalais wallahi sonu nañ ci sen o

diko waxne Pikine ñong sa pour relever le défi des inondations wax naa ko fait bërki dem fi rien ne marche à Pikine nous avons été oubliés dans tout le système qui se sont succédé au pouvoir monsieur le ministre les inondations moy suñu problématique numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. surtout sama commune ginnaaw Rail Nord ak commune mom nous sommes une priorité donc je pense que dañ ñu wara taxawal fexé ba defal ñu lu defal au moins monsieur le ministre parce que député opposition mo dëkk ginaaw raay mo dëkk Pikine mais ñoo ngi leen di ñaan xëy buñu amé ministre des inondations bu dëkk Pikine di ngeen fatlikou Pikine di wax ni yàlla na dalal xel yi yàlla na dalal xol yi fi Sénégal la ku ñu munu kenn munu fi xass sa morom kenn munu fi xass sa morom kon nañu moytu di xasante ak di sànnante traak parce que du jur ben jàmm te ñun fii nii yàlla xam ni jàmm rek moo ñu fi indi ak waxal dëkk bi nañu wëlbeetiku di waxal dëkk bi te moytu di xassante ak di sànante ay traak asalaamaaleykum wa rahmatullah